war ko bàyyi xel ci nii ñu ko tërale insha allah li ñuy tàmbalee mooy kàddu gi njëkk dalal gan ñi ndokkeel leen waaye tamit jaajëfal leen kàddu ñaareel gi danañ ko jébbal sëriñ aboo Baraka Mbakke bu fekkee moom teewul dina am keneen ko jël ci moom mooy uppeeku alquranul karim kàddu ñetteel gi danañ ko jébbal sëriñ Fatah gi mi yàlla dogal muy président Touba ca kanam nooru daare ni mu dalal gan ñi ndokkeel leen ci turu ca kanam nooru daare ñeenteelu kàddu bi ci topp danañ ko jébbal sëriñ Sidi Maxtaar Ka mu war a waxtaane lu aju ci euh, kër asaka yi muy zakat mooy waxtaane lu jëm ci wàllu zakat kàddu gi ci topp danañ ko jébbal sëriñ Mbacke Abdourahman waxtaane lu jëm ci këru asaka yi nga xam ne moo sabab jotaay bu tax ñun ñëpp ñu daje fi gannaaw kàddu googu danañu jébbal kàddu bi sëriñ Saliou Mbacké ibnu Cheikh Mamadou Moutada mu yëkkati kàddu moom tamit ci barab bi kàddu gi ci topp ko jébbal sëriñ Abibulahi Mbàkke mi nga xam ne moo jiite Touba ca kanam mu yëkkati kàddoom bu kàddu googu noppee nag ci fi toogal xalif général des di sëriñ Mouhamadul Muntaxa Mbàkke ndawam dana jël kàddu foofu la waxtaan wi tëjee kon loolu mooy tëralin wi nga ne moom la kilifa yi tëral te fas yéene ko ànd ak bokki jullit yépp wasalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi kon jot nañu ndigal léegi ci ne sëriñ Mamor am ni moom mooy yor kàddu mbooloo mi euh, sëriñ Basiru Diop sëriñ Abdou Khadir Diop moom mooy ubbi jataay bi ci alxuraan ci juróomi minute ni ko sëñ aboo baraka waroon defee wasalaamu aleykum min ash-shaytaan ar-rajiim bismillaahi rahmaani rahiim innal muttaqiina fi jannaatin wa uyuun ينفعهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي